waaw Alaaji Thierno ñu ngi lay baax. maa ngi leen fay. Eh, dootuñu wax sa diggante ak Balla loolu moom mën nañ koo tegal ni ndax àddina bi yëpp xam na ko tey mu def eh, safar boo xam ne dayoom daal macha allah am na fu mu yegg foo xam ne fu kawe la eh, bëriwul daal lu muy am. waaw sant yàlla di julli si ñoom bi sant suñu tubaab baax a baax baax waaw di nuyu suñu xarit suñu sëriñ sëñ Basirou Kane donc même mi nga xam ne dafa dégg safar bi Balla yëgal ko rek mu ñëw. ndeysaan ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sant di bu baax a baax a baax waaw donc safar gi moom comme ni nga ko gisee rek noonu la ñëpp ñoo ñoo ñoo ci bokk waaw fas yéene liggéey sëñ Touba rek waaw. te ay yëfam day fës jël nañ lépp waaw te lim def dafa yombul bari na ay kilifa yu fi ëpp xaalis si eh, eh, eh. waaw juróomi fan. waaw koy woote ci mbiru Serigne Touba. non caaxaanoo. caaxaanoo bu doon fan. jëlal bu doon benn fan. waaw mën nga ni damay ngistal bu doon ñaari fan waaye juróomi fan. te bis ba yàlla sàkk nga rey ñaari nga rey ñaari nag. dem leen jël lépp ba mu aaye leen ko. Seydina Mouhamad mbër boo bëree ci daan ko. yow xoolal mbër yëpp fu mu nekk nii yaay seen roi des arènes yaay seen yaay yaay seen maam yaay seen lépp amul mbër buy takkati ngemb te waru laa jox respect Serigne Touba nga sekkal ndaanaan nga kullu fadilin garmi star nga yow doo moroomu benn mbër jamono ji barki Cheikhul Khadim doo moroomu benn mbër roi amul benn roi des arènes buy saxe si àdduna wala muy saf ku dul yow ba nga jëlee roi des arènes xoolal panneau yi man damaa jógee États-Unis ñëw gisuma benn publicité kii bu bàyyee lamb CNG tëj bunt bi ñu daaneel stade ne lamb dootul am bu nekkaatee roi des day jëlaat roi bi dem ba ci CNG tegal leen ko ne dajaleel ma mbër yëpp ma bëreeg ñoom su ma leen daane nag ñoom ñëpp jël ko yóbbu retraité jox ko sama doom ju ndaw ji Mouhamed mu jël kuréel bi toj ko kii ndaanaan a kii daa jël léppam jox sëñ Bamba doomam yi mu gën a bëgg te dafa bëgg doom doom yëpp la jël dem jox sëñ Bamba jox ko sëriñ am sat kii ndaanaan la ak doom fi mu sax ci xol kii garmi la kii li muy def lii ci a de yoonu sëriñ Touba li muy def lii ci gën a ndaw safar na dafa am ko moom safar bari na te bokkul bu ñu xëyee dañuy def laax yu mel ni jàmm ngoon si ñu def ceeb ñu toog bëccëg ñu def suñuy tufe lii la ñu def boxeur eh safar am nañu ko moom ah taalibe baa ngi sëñ Bamba la doyloo xaadim borom jaami xaadim borom nit ñi kenn doomal saaxo dama ne ñun lu ñu namoon rek tubarkalla lekk nañ ko naan nañ ko laax yoo xam ne soo mi koo ko duur bu ñëwee fekkaat ko fa ceeb yi tubarkalla làkk anglais làkk tubarkalla soose eh dama ne soos yoo xamante ne tubarkalla yu toog safar nag nekk fa am ñu ko moom eh siisu naa waa jaangi taalibe la nangu naa joxe ñam. bu ñaan yàlla yàlla yàlla yokki nderam te taal ci barke ndax ginnaaw yàlla gën di wëcc sëñ Tuubaa lépp lu ma mel ci Serigne Touba moom moo tax maa ngi sant suma Serigne Serigne Bassirou Bara maa ngi koy sant Serigne Bassirou Bara maa ngi sant bu baax. Serigne Touba jëfandigal bàyyi sa soo liggéey Serigne Touba ba xëy maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yokki leeram di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér njabootu moom Cheikh Rafal mu yàgg fi loolu te wér ñun ay taalibe lañ ay ndongo lañ ñi nga xamante ne Serigne Touba rek lañ bëgg moo dee suñu xol euh, li rek lañ def. mooy safar gi nga xam ne Serigne Touba moom la ñu sant ñu mbokku taalibe yi ñu koy def daf ñoo war ñu koy def loolu kese la waaye du leneen di sant suma doomu ndey buuse ñëpp xam ne suma diggante ak moom suma xarit di suma wëllëre question làmb moo tax wala dara ñoo bokk dëkk yàgg na yàlla dogalee te mu jóge États-Unis def transement déplacé ñëw à cause de Balla Gaye numéro 2 mënuma ko fay donc maa koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk ak njabootam ak papaam ak yaayam ak ñëpp daal waaw moom nee roi des arènes amut yow yaay roi des arènes kenn doon ko ku dul yow. waaw ah, roi des arènes moom la rek euh, dama bokk ci ñi nga xamante ne ba muy metti ak ba muy saf ak kenn ñu muy wax ne damay bëri bëri laa ko jël li mu la wax moom doo xam wax la mais dégg-dégg la laaj donc euh, moo tax mu waxee noonu. te loolu du dara roi des arènes allah day teguwaat fii rek bu neexee yàlla loolu moom amul ñu ci sikki saaka sax loolu moom dafa leer. mais fan nga ko bëgg a jaar. non jaaruma ko fenn man làmb laa fi nekkal bu yàlla dogalee ak ku mu munti doon ak fu mu munti nekk nee day teguwaat suma loxo incha allah. yàgg yàgg roi des arènes fii sant. waxi comédien wax fi ne rek li li mu wax li nga wax ni moom la wax waxi comédien la rek. dama am ay magul làmb am estafu làmb ñu xam làmb wax ne du mu bëre diw wala jotagul di wër-wër loo taxul nit kooku taxaw bàyyi boppam junj la rek bu may joxe te li may wax ñoom buñ ko seetaanee nañ xam baax li may wax xam naa baax ñu ngi pare xam naa baax na maa ngi leen di pare làmb la làmb la ci biir làmb yi maa nañu gérer seen wàll rek ma a sama wàll amul problème. kon dafa mel ni yaa ngi waajal. ma waajal ma damay waaj sama bopp man. Uh-huh. sama bopp laay waaj. dama dama lay laajal ci wax bu buus sànq buus la foo sànq da ngay bëre da ngay nanguwaat couronne bi jox ko Mouhamed nga ne ko déet déet déet kon lamb ban coono moo ci nekk ba yéene woo sa doom dund coono bi ngeen di dund. waaw Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dafa sell damaa jur doom tuddee ko yonent bi jur doom tuddee ko Mamadou. muy ñaari yonent yi di laa doom tuddee ko Xaadimu ñaanu ñaanuma yàlla man maa bëgg loolu sama objectif samay doom bi coono bu ñu nar a daj rek man mën naa ko daj ñoom bu ñu màggee réussir loolu rek la mais du ah. te te man sama lépp Serigne Touba la dama jël samay doom yóbbu leen ci daara pour ñu jàng alxuraan jàng xasaayit te àdduna mënul neex ba ñuy retourné naan dañuy bëgg a bëri donc loolu moo tax ma te xam naa amuñu objectif boobu sarak Ama Baldé am combat ñu dem ba waaj ko ficelé diggante bi mu am nu mu demee ba ñu naan kër ga sax yëngu na. <laughs> non Ama am am na ay. laamu Ama am na ay am ay encadrement aussi du dëgg nekk na xale nekk ci yoon nekk ci carrière bu baax aussi moom bu xalaatee nii rek eh, waragul mun a bëre Tapha am na fu mu ko teg mais làmb moom làmb la ku mu jot ne rek war na mën a boole rek. lamb war na mën a boole ak Ama Baldé Tapha Tine war na boole la kon donc moom bu xoolee loolu ak estafam rek peut-être loolu nag wax dëgg yàlla seen estaf la seen côté. war nga mën a wax parce que ci famille dafa jël yoonu boppam maanaam léegi dafa màgg mooy gérer carrière boppam est-ce que loolu tamit jaarul. loolu. xam nga xam nga journal moom ne yàlla ma yàlla jégal oh, xasuma benn journaliste mais mais tant que déggoo nañ ko ci gémmiñam Zil mooy papa Ama Baldé mooy magam mooy léppam ama lépp lu moom Zil moo koy moo donc man xam naa ne wala li ma jàpp sama biir xool jàpp naa ne waxul loolu waaye mais ama Zil moom réeróowuñ benn yoon dëgg yàlla waaw. da parce que Zil mooy suñu mag ñun ñëpp. man mii di wax yow lu Jules wax dama koy wax daf may tegul nii ma tegul nii wax ma laa na kon ama donc loolu la. octobre deux mille dix neuf deux bi yaa ngi nekkoon ci pression xaw ma sax nooy nooy préparé combat ah, bii daaw mu ma fekk Paris mais yàlla rek moo mën ren moom ma fekk fii may def safar kon nag euh, ñaar yëpp xéwal la. bee xewal la woon. bii xewal la ah. bii moo dàq bii moo dàq bii moo ma gënal bii yemut ak leen Serigne Touba yemut ak leen lii moo ma gënal. ba la mel ni da ngay làqatu ndax euh, sa doom ndey wax na fi ne dangay jël ay conteneur yëre di ko yóbbu. lu dul safar. ñun ay taalibe lañ jàpp naa ne xam naa ne daal ay loolu wér nañu. daal sëñ Bachirou. yàlla na yàlla yokk leeram. jërëjëf. li bu sa wax lépp dëgg la nan ko ñaanal yàlla lafal ko cat musal ko ci saytaane at làmmiñ saytaane dafa mees yàlla na nu yàlla musal cat ay cat ay cat yàlla na nu yàlla musal cat ay Balla Gaye de doomu duubalees séeri buri bàcc li bàyyi Mouhamed rekk lu ñu ah, magu buuse ba ah, ee eh, ma xamale benn affaire xoolal sabar sabar jeex na benn fa benn fan la doon sabar ak ñaari fan moom la juróomi juróomi non fooy safare safar jeex na safar jeex na nag yaa ngi yeewee gileem yaa ngi yeewee bëñ yaa ngi fi dégg ginaar yaa ngi fi picc yaa ngi sax ak pitax yi ak ramatu yi waaw yàlla ko fan cat te musal ko ci saytaan ay lamit ay Balla Gaye doo ay